jërë ngeen jëf mbokk internet yi am nañ mbégte contentement di àndaat ak yéen ci suñuy programme di leen wax ne ngeen abonné ci chaîne bi te boo leen abonné ba pare bu leen fàtte bés li nga xamante ni moo di cloche de notification pour lépp loo xamante ni wàcc na fi ci xibaar ñu daal di koy jël bokk ko ak yéen mbokk yi comme ni ngeen ko xamee saa su nekk bu actualité amee dañuy daal di def li nga xamante ni mooy voix jot leen leeral li nga xamante ni moo génn le temps ñuy dem outil li nga xamante ni moo di ay information pour renforcer li nga xamante ne mooy détail bi ñu jaar di jot gis ngeen boobaak léegi sëyu Amina Poté ak Malick naar dafa bëri coow bëri polémique loolu ci côté Malick naar ak ci côté Amina Poté Malick Nar ñu bëri daan ko dànkantale ne dafa bëgg siiw moo tax mu dugg ci Amina Poté Amina Poté aussi également ñu bëri naan nu mu doon teeroo jëkkëram jaru ko woon ndax grande dame la amul droit def genre yu mel noonu day mel ni genre kokkali la mais gis nañ récemment coow loo nga xamante ni am na ci diggante Malick Naar ak Jëf Jël Jëf Jël nag doon def ay révélation yoo xamante ni ñun ñëpp seetaan nañ ko mu doon wax ay kàddu yoo xamante ni daf ko euh, jëmale ci ki nga xamante ni moo di Malick Naar dem na ba wax ci wàllum passeport bu mu yor dem na ba wax ci li ko dugal ci Amina Poté ak yeneen détail récemment mbokk yi ñu gis benn vidéo boo xam ne moo ngi circulé ci réseaux sociaux yi vidéo bi nag du lenn lu du Malick naax ak benn daam ñoo doon waxtaan euh, ñoom nag seen waxtaan ñu ngi ko def ci anglais waaye gars yi traduire nañ ko en wolof di xamal askan wi le moom Malick Naar dafa doon def ay révélation di wax ne euh, dafa dugg ci Amina Poté nax Amina Poté célébrité la célébrité bu mag la bu nekk fii ci Sénégal alors et que dafa regretter li nga xamante ne mooy mariage bi nga xamante ne jot na am ci ñoom ñaar te li mu bugg mooy divorcer ak moom delluwaat ak ki nga xamante ne mooy yaayu doomam affaire bi nag choqué sénégalais yëpp ñëpp di ci def débat ndax ki nga xamante ne moo di Amina Poté dafa di jigéenu jàmbaar teg ci nekk référence ci milieu bi nga xamante ne mooy milieu showbiz ñu bëri bëgg ko alors Malick Naar bu génnee kàddu yooyu xamuñ lu lu ci wundu ñëpp xamuñ lan moo wundu kàddu googu euh, ndax dafay wax loolu rek pour joxe excuse femme bi wala lu muy wax dëgg la ci moom xamuñu ko en tout cas yooyu mooy révélation yi nga xamante ne def na ko ci femme bi nekk xamante ni choqué na la population sénégalaise mbokk i lii lañ leen indiloon le temps ñuy am Amina Poté un interview ñu ne nañ ko jot a partagé ak yéen di leen wax ngeen abonné te bu leen fàtte ba si nga xamante ni moo di cloche de notification yi pour yeneen vidéo yi waajit na